ma ñëwoon ànd samay ànd jaamee samay camarades de parti ñëw déposé woon euh, suñu plainte ndax dëkku yoon la ñu ne te nit du fajal boppam fi ñu am yaakaar ne bu ñu fa indee suñu mébét dina faju moo yoon ñëw nañ yoon déposé suñu requête euh, agression la effectivement ni nga ko waxee noonu la demee que depuis longtemps maa ngi subir ay menaces étant un acteur dans l'arène politique di défendre samay cause di défendre sama appartenance bien vrai que ça ne plaît pas a certaines personnes donc euh, ñu invité ma si média bi ñuy wax Medina TV euh, j'avais même l'intuition que j'allais être attaqué connaissant l'homme avec qui j'ai affaire euh, moo tax euh, xawoon naa prévenir sama bopp mais finalement je me suis toujours dit que peut-être dina jàll bi ma ñëwee def naa émission bi ma defee émission ba pare ki nga xam ne moom laa doon defal émission bi sax maa ngi naan ko su génnee gëm naa ne dinañ ma attaqué mu ne ma comme noonu la naa la yóbbu déposé la mais yaakaaruma ko euh, bi ñu wàccee mu taal scooter bi mu toogee am ku ko di ne ko sa waay naka mu mu ne ko ça mu ne ko woo mu ne ko déedéet parce que masque nga takk boobu am na ñeneen ñu doon rôder autour pour identifier ma pour gaañ ma donc dama jékkee gis ay nit ñu ma xëcc di ma dóor génn ay jaasi di ma ko dóor xëcc ma ma daanu mais ñoom ñu ngi yuuxu naan boo bàyyiwul Bamba Fall dinañ langam taan sa ndey boo laalatee Bamba Fall ainsi de suite donc j'ai un tout petit peu perdu conscience ñu dugal ma si diggante ñaari oto yàlla def bëri sutura am nañ si vidéo xëy na bu am doon vidéo bi ñu bari xëy na mën nañ ko bañ a gëm parce que nit ñi mën nañ bañ a gëm ne acte yu bon yu ñaaw yooyu mi ngi kon ne di am fii si réew ba léegi mais la mais de Dieu am nañ si vidéo on arrivera à identifier les acteurs de cette agression et incha allah bàyyi nañ ko si loxo yoon te yoon dina si def li ko war. di métitlu di ñaawlu li am nii man démb ko yëg bi ma ko yëgee def naa sama warugar dem seeti ko Maguette Malick eh, plainte bi nag boo gisee mu am du ragal taxul mais dañu bëgg nit ñi delloo si seen xel te xam ne fii nag du du zone de non droit ba lu neex waay def. li ñuy demander mooy on appelle au calme et à la sérénité des deux côtés Médina nag population médinoise du ñu may benn nit mu taxaw pour terroriser wala euh, jël la population en otage ça on na on ne l'acceptera pour personne que mu leer on est en politique il la le droit de mener sa campagne comme ñun niñ campagne noonu la amee droit mener suñu campagne su ko bëggee une campagne civilisée dina am déggoon déggoon nañ leen bi fi Barth ñëwee ñu ne Barth dootul déggu Médina menaces yi mu ngi ñëw les gens ñu ngi koy dégg ñu ngi koy gis et ñoom ñu ngi dem tamit di di poser ay actes pas à pas dañu bëgg loolu mu dakk incha allahu taala suñu leader dina dugg Médina na leen wóor ni jàmm bu fekkee ni jàmm ño ñoŋ na na si Sénégal bi bu yaboo ñu artu ko wallahi lazi ñun kenn duñu terroriser à la Médina kooku moom bu koy bu fekkee ne loolu la dugal si boppam gëmloo ko ñi ñi mu dem fi mu nekk nii ñooñu nañ ko xamal ne Médina ëpp nañ ku ñu ñu ñuy tiital ñun kenn duñ tiital te buñ ko digaale ak moom bu neexee yàlla ak yonente bi liy coow ci moom la jëm. tout dépendra de lui parce que quand même il boo xoolee ba nga naan c'est un coutumier des faits on avait mené une campagne ci locale yi kan moo dégg yeewi askan bi ci ci le quoi que ce on ne verse pas dans la violence mais nous n'allons pas croiser nos bras pour permettre aux autres ñu ñëw dal suñu kaw duñ ko may kenn su fekkee dafa yaakaar ni dafa bootoo appareil d'État na ko wóor ni ñu nous sommes des citoyens sénégalais au même titre que le que le premier chef su bëggee jàmm Médina jàmm dina fi am su fi instauré leneen dinañ dinañ ko dinañ répondre. Euh, cette agression ñi ñi ñu yónni euh, ñu ñu war a doon. Bamba Fall la parce que moom la ñu tudd turam may xamal Bamba Fall noonu ne ko laal na de yéene moo doon ma fanaane hôpital yéene moo doon suul ma almeeru Tuubaa ya waaye yàlla bëri na sutura ndax àdduna am na ñoo xam ne mën nga am pexe waaye yàlla du si at te na xam nag ne bii mooy dernier fois bi muy laal nit ndax nag duñ ko bàyyi bu fekkee ne léegi déli la nit am appartenance politique bu fekkee déli la nit ne fii laa far faroon naa si yow si yow bu fekkee ne wax sa xalaat si doxalinu réew mi ah doxalinu gox bi déli la bu boobaa moom na ma wat fan la doon déli euh, nit nag ñaar moo mën a am euh, euh, la force de l'argument et l'argument de la force donc moom nag argument de la force lay utiliser parce qu'il a perdu la force de l'argument nit ki boo amatul argument boo joxe amatoo loo wax réew mi parce que boo waree askanu lëmm xamatoo loo taxa wax xam ne askan wa bàyyi nañ la wan nañ la ginnaaw li nga mën a utiliser mooy la violence waaye nag day dakk te buñ ko waxee ne day dakk rek dana dakk may lancer un appel à ces jeunes ñi muy bëgg a instrumentaliser ne leen nous ne voulons plus répéter l'épisode de Astou Sène et de Fawad ndemi bi amoon ñooñu lañ setete ñii dugg euh, dem duggi kaso ba ñu génnee ña ko waraloon ñoom ñoo lëkkaloo waat tey ji taxaw di kokkali waa Médina ba waa Médina gis seen bopp xam ne dañ leen saaga tey ñoo taxawoon di kokkali waa Médina naan leen ku mu naqari na nga taal sa carte électeur ay ku ñu faloon sa baay ministre doo wax donc kooku Médina xam nañ ko bu baax rëccu nañ lañ ko fi tegee muy man di ñeneen ak waa Médina yëpp te incha allah au soir du 31 juillet dina ko xam xam na ko sax ndax bu génnee ña koy topp du bëri waaye la mu gëm léegi mooy jaxase Médina waa doomu Médina di reyante di génne seen bopp ay jaasi di dóorante ay jaasi may wax waa Médina bu leen nangu loolu votre pire ennemi c'est